laqin lisaani waxlulan minhu luqad wajcalhu zaakiran wa shaakiran abad wajcal kalaami raashidan wa mursida wa fikrati nawwir wa xalbi arsida mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di balu aq te di baal di ñaan suñu borom bi subhanahu wa taala mu boole ñu jéggal ni ñu ko baaxoo ànd ak yéen ci sunu jotaayu xam-xam yi nga xam ne ci la ñuy fàttalanteendoo ak yéen ci lenn ci mbindum sëriñ bi radiallahu anhu ci jataay yooyu lañu bëgg a dellu si eh, di ko àndaat ak yéen suñu bind bi weesu nag ñu ngi tolloon ci bayit bi nga xam ne moom la sëriñ bi radiyallahu anhu doon leeral di wax ne wa kullukum di wax ne wa kullukum yusalu an ra'yin ra'a kama bihi ata xadisu man waa loolu di dëppook xadis bi nga xam ne moom la yonente bi sallallahu alayhi wa di wax ne kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kenn ku ne ci yéen ab sàmm la te kenn ku ci ne bu ëllëgee danañu ko laaj lamu mu doon sàmm nu ko doon sàmme ci bayit boobu lañu taxawoon suñu bind bi weesu suñu bindu tay bi nag di tàmbalee fi nga xam ne sëriñ bi radiyallahu anhu fi lay waxe ne amal butuunu fahfazuha min xaraam wa subhatin tanawulan bila nfisaam nena amal butuunu ndaal seen biir ya maanaam daal biir ya faxfazuha na ngeen ko wattu min xaraamin ci lépp loo xam ne lu araam la wa subhatin akum lënt tanaawulan ngeen ko cay jot liku bilan fi ci lul ak dok nena na seen biir yi na ngeen ci moyto dugal lenn loo xam ne lu araam la wala lenn loo xam ne dafa am am lënt maanaam lépp loo xam ne suñu borom bi subhanahu wa taala daf ko araamal na ko moytoo dugal ci seen biir yi waaye lépp loo xam ne lu lënt la na ko moytoo dugal ci seen biir yi kon lu lënt sax bul ko dugal ci sa biir waxuma laa loo xam ne euh, suñu borom bi subhanahu wa taala daf ko araamal kon bokk na ci lépp loo xam ne mën nañ koo dugal ci biir rek te suñu borom bi subhanahu wa taala araamal ko mu di loo xam ne daf koo tere bu boobaa loolu euh, nañu ko moytandiku bu baax a baax comme lu lënt la wax nag rawatina loo xam ne moom daf ko araamal ba araamal ga leer nañ kon loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax moo tax sëriñ bi radiyallahu ne seen biir yi day na ngeen ko wattu na ngeen ci wattoo dugal lenn loo xam ne suñu borom bi subhanahu daf koo araamal waaye na ngeen ci du bañ moytoo dugal lenn loo xam ne sax am lënt daf caane xamuñu laax lu araam la wala lu dagan kon loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax euh, te loolu lu ñu ci mën a tudd bokk na ci euh, suñu borom bi subhanahu wa taala araamal na ñuy lekk euh, alali jirim ndax loolu suñu borom bi subhanahu wa taala daf koo araamal kon alali jirim kenn waru koo dugal ci sa biir bokk na ci limu aramal ba tey riba loolu itam war nañ koo moytandiku euh, di ko dugal ci suñu biir maanaam di euh, ëppalante ci euh, leblante wala yu demee noonu yooyu nga xam ne mën naa jur riba yooyu yëpp suñ borom daf ko araamal kon yooyu nga xam ne moom dafa araam ba mu leer naññ ne yi dafa araam yooyu moom waxuñu ko sax waaye ya nga xam ne dafa lënt te xamuñu lu ci lu di ab atteem ndax lu dagan la wala lu araam loola sax suñu borom subhanahu wa taala daf ñu koy tere kon bokk na ci yooyu mu ñu tere ñu war koo moytandiku bu baax lu mel ni lekk euh, ay alal ci ay neen maanaam lekk alali jàmbul ci ak neen wala lekk ci li ñuy tuddee am ramm wala lekk ci turu diine yooyu yëpp suñu borom subhanahu wa taala ko araamal ñu war koo moytandiku bañ koo def moo tax muy wax ci alxuraan ne laa taakulu amwaalakum baynakum bil baatil waxaan ne euh, laa taakulu amwaalal yataama zulman bu leen lekk aw ay eh, alali jirim yi waaye ngeen koy lekk teg ko ci ak tooñ rek kon loolu itam mooy tolloo ak li nga xam ne moom lay waxaat ci munawwir sudur ci faslun fil batni wax ne la tudxilil xaraama fil batni wala ma fihi subhatun balil xilla wila maanaam bul dugal ci sa biir lenn loo xam ne dafa araam wala sax lu lënt waaye booy dugal ca biir na dugal ca biir loo xam ne euh, lu dagan la loo xam ne suñu borom subhanahu wa taala daganal na ko euh, moo xam euh, ci aw ñam la moo xam alal ji ngay fàggu ba dugal ko ca biir loolu lépp na nga ba mu nekk lu dagan mu ne fi talabil xalaali fa huwa al muqarribu lizil jina lizil jalaali ne wajtahidu na ngeen farlu fi talabil xalaali ci sàkku lu lew fa huwa al muqarribu lool de moo leen di jegeñal lisil jalaali ñeel boroom aji màgg gi ne kon na ngeen góorlu bu baax a baax ci sàkku lu lew ndax lu lew loolu ngeen di sàkku dey mooy li nga xam ne moo leen di e, jegeñal suñu borom bi subhanahu wa mi nga xam ne moom mooy boroom màgg gi kon booy sàkku e, booy fàggu na ngeen fexe di góorgóorlu ci fàggu lu lew Euh, waaye loolu mooy li nga xam ne moo leen di jegeñal euh, suñu borom bi subhanahu wa taala waaye mooy li nga xam ne moo leen di dimbali ci bu ngeen toppee suñu borom subhanahu wa taala topp ga mën a jëriñ waaye moo leen di dimbali ci euh, mën a teg seen tànk fi nga xam ne mooy li suñu borom bi subhanahu wa taala daganal kon sëriñ bi radiyallahu ne ni ngeen góorgóorlu te farlu ci wut lu lew waaye bu ngeen ko amee day loolu mooy li nga xam ne moo leen di dimbali ba bu ngeen bëggee jege suñu borom bi subhaanahu wa taala jege ga man leen a yomb mu ne wajtahidu na ngeen farlu itam innil tumuuxu nde ndaal am ngeen ko moom lu dagan loolu fixtisaar ci ak doylu an sibaan walif regg fa innahu ndaxte regg day ra suuxtiraarin mooy bopp gépp wooru maanaam mooy cosaanu jëpp waru mooy bopp jëpp waru nee na na ngeen góorgóorlu bu baax itam su ngeen uh, fexee ba am lu lew ba am lu dagan lu lew na ngeen góorgóorlu ba lu dagan lu lew loolee ngeen bañ ciy lekk ba regg ndax regg la nga xam ne moom leen di moom la leen di jural day uh, du doon lu baax moo tax mu ne na ngeen fexe ba bu ngeen bu ngeen sàkkoo lu lew ba am ko ba am lu dagan su ngeen koy jëfandikoo itam na ngeen fexe bañ caa ba suur këll ndax la mu leen di jural du doon loo xam ne lu baax la moo tax euh, sëriñ bi radiallahu anhu doon ko waxaat ci nax ju ne waalam bi ann al xirsa li taami min mujibatil aari wal malaami ne na nga xam ne xeer ci aw ñam day bokk na ci yi nga xam ne day waral yeddaange waaye day day waral li nga xam ne mooy gàcce ndax ne na waman yualliq bi taamil himma wal farji fa huwa al jaamiul mazimma képp koo xam ne jël nga sa mbir yëpp day aj ko ci aw ñam waaye aj ko ci euh, bànneexu bakkan muy sëy ak yunimel ni mel na kooku day na xam ne lépp luy yeddaange lépp luy euh, bàkkaar moom moo ko boole ndax loola la mu koy jural mooy da koy jural mu topp bànneexu bakkanam te saa toppee bànneexu bakkanam loolu mën na koo xañ digganteem ak boroomam moo tax mu ne kon li mu wax ne su ngeen ko amee na ngeen ci doylu bu leen ci e, lekk ba regg waaye na ngeen ci jël kem seen soxla rek moo tax mu ne xasbuka minhu war na laa duy sëkk ca e, ñam woowee maanaam alal ji nga xam ne moom nga fàggu ba am ko e, def ko mu nekk aw ñam ñam woowee day nee na sëriñ bi radiyallahu anhu nee na xasbuka minhu maa yuqimu sulba war na la caa doy sëkk li nga xam ne da koy dëgëre da koy dëgërale sa sa sa da koy wute kàttan maanaam taxaw man cee taxaw taxaw wi yan li koy tutiyaan rabba ngin nga mën cee dëgërlu ba mën a topp sa borom bi subhanahu wa taala ne na kon ñam woowu na nga fexe ba li nga ciy jëf jël di ko ci jëfandikoo na doon loo xam ne rek boo ko téyee mu doon loo xam ne mën na laa jàppale ba nga mën a topp sa borom bi subhanahu wa taala waaye bul ci euh, regg mukk ndax regg Euh, ci aw ñam la jural borom bi euh, mën na ko jural euh, yu baree bari yoo xam ne benn gënu ci ci nit ki moo tax mu ne waxzar min asarahi kulla dahri fa innahu mabdau kulla shari na nga moytandiku bu baax a baax foqale na nga moytandiku bu baax fo baax foqale ndax foqale day mooy li nga xam ne mooy mabdau kulli shari mooy tàmbali maayu tàmbali waayu lépp lu bon mooy tàmbaliwaayu lépp lu bon te it ñàkk regg maanaam di lekk kem li nga soxla loolu day tax nit ki am ak wér waaye day tax nit ki euh, am ak oyof bu baax a baax a baax a baax ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, buur bu ñuy wax najaas yi am na addiye joo xam ne mas na koo yónnee waaye ba mu ko yónnee addiye joojee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, ja ab docteur àndoon ca mu ne doctor bi moom mën naa dellu bi ko najaa si laajee lu tax mu wax loolu euh, yonent bi da ne ko ñun de aw nit lan ñoo xam ne du ñu lekk mukk te xiifuñu waaye suñuy xiifee sax bay lekk euh, du ñu lekk ba suur kon loolu li mu leen di jural mooy ak wér ba duñu soxla li nga xam ne moo di euh, ab ab ab médecin kon looloo tax ñu war a góorgóorlu bu baax a baax ba saa boo xamee ne dem nañu ba am lu dagan lu lew loo xam ne moom la ñuy xéewloo ba cee xéewlu ñu bar bancaa euh, xeer ba mu ëpp ñu bancaa xeer ba mu ëpp ndax xeer ca ba mu ëpp la mu lay yóbbe rek mooy euh, li sëriñ ne mooy mabda u kulli charrin mooy tàmbali maayu lépp loo xam ne euh, ñaawteef la mu ne istiban sax si ndax reggub Euh, nit ki minal xalaali ci lu dagan mabda'u kulli sharrin mooy tàmbaliwaayu lépp lu bon fil axwaali ca mbir ya kon gis nga noonu la ko indee ci euh, xas euh, ci bayit boobu comme ni nga xam ne noonu la ko indee waat ci nax ju te mooy bayit bi ñu tudd léegi moo tax mu ne is sibanu sax si ndax rek gu kem si day minal xalaali ci lu dagan mabda'u kulli sharrin mooy tàmbalikaayu lépp lu bon maanaam nit ki di regg ci loo xam ne lu dagan la maanaam lu mu sàkkoo la aw ñaqam ba liggéey ko ba mu lew ko doom mu lekk mu jënd ci aw ñam lekk ca ba suur nee na loolu de mooy tàmbaliment yi lépp lépp lu bon kon nit ki euh, rawatina nag nit koo xam ne day jëfandikoo loo xam ne lu suñu borom subhanahu wa taala araam la araamal la mu wëlbatiku di ci jëfandiku ba regg kom ku doon jëfandikoo riba wala ku doon jëfandikoo alali jirim lekk ca ba regg kooku day mel ni day boole ñaare bàkkaar kon wala day boole euh, lu bon lépp ndax jëfandikoo na alal joo xam ne leewu ko ba pare mu wëlbatikuwaat lekk ca ba regg kon yooyu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax moo tax sëriñ bi radiyallahu di ñu leeral ci xuqal bu kaaw ci euh, ponk yi nga xam ne mooy ponki tasawuf euh, ni nga xam ne noonu la ab suuf yi war a mel bokk na ca mooy aljon tawil mooy dafa war a làmboo ab xiif bu gudd a gudd a gudd maanaam dafa war a mën a euh, mën a xiif waaye dafa war a mën a xiifal biiram ndax ki nga xam ne moo bëgg jaamu yàlla euh, te bëgg jaamu gi am fu mu ko yeggale euh, bu fekkee ne day regg lu bari rek bu boobaa la mu bëgg a def lépp loolu mën na koo tere def kon moo tax sëriñ bi radiyallahu anhu daal di ñuy leeral loolu ci euh, xasida googu nga xam ne mooy xasida ab bu kaw mooy ci bay dami wax ne sumtun wajuun tawilun baadahu saharun wa uzlatun an suyuqin bil isharat euh, kon regg ci lu dagan moom la sëriñ bi di tere waaye waxut sax loo xam ne lu daganul la wala euh, loo xam ne nit ki fa mu ko fàggoo lewut ndax loolu li muy jural nit ki ci ay jafe-jafe Euh, xaw na takku lool moo tax mu ne fii nekk na ci regg ci lu dagan sax minal afaati ci ay gàkk maala yox saa lool deefu ko takk maanaam deefu ko lim min ha bokk na ca taf yi dana dikk sittun di juróom benn yoo xam ne xunaa fii li tox saa ngir ñu lim ko ne na regg ci lu dagan dana waral juróom benni mbir yoo xam ne dana gaar doomu aadama bi nga xam ne moom moo ko def maanaam nit ki nga xam ne day regg ci lu dagan am na juróom benn mbir yoo xam ne regg gi muy ci lu dagan loolu moom moo koy yóbbee maanaam lekk gi muy lekk ba suur ci lu dagan loolu moom moo koy yóbbe bi ci jëkk mooy taxsiyatul xulub bi mooy day wowal ak xol lekk ci lu ci lu dagan day wowal ak xol ifsaadul uquli day yàq am xel itam ibtaaluha daf koy yàq Euh, xifzan ci ak wattu yu sax saxihu dana wëral an nuqulu toxal ga ne bokk na ci li nga xam ne regg ci lu dagan daf koy def mooy day wowal ab xol maanaam ki nga xam ne buy lekk day lekk ba regg ne na loolu day tax ab xolam wow waaye loolu ci boppam day yàq am xel maanaam day tax nit ki am xelam du neex am xelam du neex euh, kon loolu lu ñu war a moytandiku la muy euh, li nga xam ne moom lay jural doomu aadama mooy day wowal ab xolam waaye day yàq am xelam wa siqalul aada yi niki noonu itam day diisal ay cër maanaam ki nga xam ne dafa lekk ba regg nit ki saa bu lekkee ba regg ay cëram day diis waaye lan lay bëgg euh, nelaw rek lay bëgg waaye dallu rek lay bëgg noppalu rek lay bëgg kon regg day diisal ay cër waaye day diisal ay cër tàyyelloo nit ki ci lépp loo xam ne moo aju ci ak jaamu yàlla moo tax mu ne wa siqalul aada yi day diisal ay cër ana ibadatin wolis ak jaamu yàlla waan ulumin ak wolif ak sàkku xam-xam xat xawat goog làq na ifaada njariñ ki nga xam ne dafa lekk ba regg maanaam ba ay cëram diis day tayyeel ci jaamu yàlla waaye day tayyeel sax ci dem sàkku ji xam-xam yooyu yëpp ay gàkk-gàkk la yoo xam ne regg ci lu diis daf koy euh, euh, jural doomu aadama bi euh, regg ci lu diis daf koy jural doomu aadama bi wayam suru day dimbali itam a seytaana seytaane wa yu xaw wi day dëgëral itam allazaati bànneexu bakkan ay dan ba tey faxzaru kon na ngeen wattu al afaat gàkk yooye kon nee na ci li xam ne regg def koy jural nit ki mooy day tax nit ki e, saytaane e, manal ko day tax nit ki saytaane manal ko waaye itam day yee bànneexu doomu aadama bi maanaam nit ki saa bu reggee e, bakkanam noos rek lay bëgg waaye bànneex rek lay bëgg waaye dootul bëgg lenn loo xam ne mooy jafe ci moom kon looloo tax ñu mar war ko koo moytandiku bu baax a baax a baax moom regg ndax li nga xam ne moom lay jural doomu aadama bi benn boo xam ne mën na ko cee jëriñ amut ndax bokk na ci sëriñ bi lim euh, ci yi nga xam ne danañu ko jural doomu aadama bi mooy day wowal ab xolam waaye day yàq am xelam waaye day diisal ay cëram ba du sawar ci ak jaamu yàlla du sawar ci euh, sàkku ji xam-xam waaye itam day tax loolu day dimbali seytaane ba mu am ci nit ki aw yoon waaye itam day euh, day tax nit ki Euh, ak euh, li nga xam ne mooy bànneexam gën a dëgër bu baax a baax mu gën a bëgg ay caaxaan waaye gën a bëgg am fo waaye gën a tàyyeel ci li nga xam ne mooy euh, li war ci digganteem ak boroomam ci ak jaamu moo tax boo demee ci masaalik sëriñ bi radiyallahu anhu maa ngi ko fay wax naan amma taamu fa huwa yurisul fata xal bi izama usbita am ama taamu ndaal aw ñam day foofu huwa moom aw ñam yuurisul fata day donnuloo cem si xasaawatal xal bi wowu xol isama usbita foo mu fi saxe maanaam sax boo xam ne xamee ne sax na ci nit ki ne kii dafa euh, foqale dafa bëgg lekk day lekk bu baax a baax a baax nee na loolu day euh, wowal ab xol waaye day tax nit ki euh, am xelam dara du ci mën a dugg Euh, moo tax sëriñ bi doon ko waxaat tekun kaati ne fal ilmu la yonta li may yaxsha tawa bal rabbuna abdan saburan yulhimu maanaam xam-xam day euh, mooy li nga xam ne duñu ko jox ku ragal ab xiif euh, suñu borom bi subhanahu wa taala jaam bu ñime ab xiif rek te nungoo muñ kooku la suñu borom bi subhanahu wa taala di jox xam-xam mu koy waxaat ca faslun fil batni ci munawwir ba tey ni wa xaysumal xalaala nilta faqtasir alal kifayati wa billahi intasir saa boo xamee ni am nga lu dagandey sàkku nga fàggu nga ba am lu lew nee na na nga nga gàttal ci waaye nanga nga nga jël ci si kem sa aajo rek waaye bul ci ëppal bul ci yeesal ndax li nga xam ne moom la la mën a jural ci ay euh, gàkk moo tax sëriñ bi radiyallahu anhu Euh, ay ñu li nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy jëfandiku ba regg kon ñoo ngi tuub bu baax te jéggulu di wax ne in uridu ila al islah mastataatu ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey